jërë ngeen jëf amee téléspectateur people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte ci ñëwaat ci sunu yeneen formidable sunu yeneen émission mu di people 221 tey nag ñu am mbégte euh, seet si koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci aar bi mais dinañ leen fàttali tuuti rek kii mooy Djily Seck Djily nag bu ñu waxee nekk tambour majoru Siteu mais nekk jumeau am jiili nag gars yu bëri ñu ngi ko gën a <laughs> ràññee ci combat surtout Papa Sow bee passé nga xamante ni indi woon na coow lu bëri ci làmb ji jiilee ngi nii moom lañ fas yéenee seqal waxtaan jiil dañu lay bàyyi nga nuyu ñu lay siiwal fii ci People 221. waaw mais sama xarit guy gi 95. maa ngi lay bëggee. Mhm. xam di nuyu waa People 221 yëpp. Mhm. xam la boo xamante ne moo ngi daf bomb. Mhm. ñëpp a ngi koy suivre quoi. yow it nga nekk sama waay boo xam ne xam nga. day la nii rek mais yow yàlla boole nañu dix ans si ginnaaw. ëpp na ko sax bar sëñ Fallou. billaahi xam nga mun naa trop yow boo ñu soxlaa ñu dañ ciy am fierté. ndeysaan parce que jàmbaar nga. ndeysaan ci xaar leneen. ndeysaan voilà mu ngi noonu jili fi may njëkkee mooy combat bee passé. annulation bi andi woon coow lu bari. ñenn ci ñu baree bari bari joxoñ la baaraamu tuuma ni yaay yàqoon lamb jooju. ok loolu mënul ñàkk. dañ ciy sant micro bi dañ ciy sant yàlla baax. parce que tey mooy li ma la wax nekkuñ fi ay tëggkat ñun dong xëy na liggéey nañ si làmb leneen lu bëri loo xam ne loolu waroon nañoo gën a may tur sax que pas affaire bii. parce que yàgg nañ bëggal nit ñi mooy li may wax chaque jour rek. mais tey ñu si bëri ñoo ngi ñu xàmmee ci loo xam ne loolu neexuñu ndax bëgguñu nit di gis violence si ñun. mais saa ñu gis nit sax ñu ne kii moo xaañoon papa sax wala dara daf may métti. mais damay reetaanaat tamit benn côté damay sant parce que nit tamit nekk na si métier di si liggéey na bëggu bëggoon naa mu mais loolu lu mënul ñàkk la faw moom am. Mhm. la erreur la wax naa ci waxaat si. Mhm. xam nga tey erreur la boo xam ne Papa saw jàngat na si man jàngat naa si. Mhm. te moom moo si gën a jàngat moom mi nga xam ne moom moo dugg fu mu warul dugg. moom dina si gël jël jàngat. man mii tamit dama siy jël jàngat. parce que dara bu amee il faut kenn ku si nekk xool yu positif ak yu négatif. ñu mën si doxal quoi pour suba ñu xam li ñu war a def. loolu la rek. mais ñu bari jàppoon ne aussi tamit journée boobu ak ni mu tolloon. gars yi waroon nañu koo mën a waxtaanee ba du yàqu. ñun ñoo gën a bëgg loolu ñun ñi nga xam ne làmb ji 2019 la taxaw. boobu ba léegi xam nga ñuy ngemb di si def suñu xaalis. mooy li ma lax Papa Sow su ñun ñëpp suñu préparation moo gën a métti fuuf préparation parce que bokkul ki naan sam ñaata ki naan benn ñaata loolu du benn. xam nga te kon ñun ñoo gën a bëgg a tàqalikoo ak moom. parce que bu dee fere li ñuy fere du ko fere bu dee coono li la preuve bërki démb rek jàkkaarloo bi gis naa ko benn moom doo nga ànd Fallou Galas Baye Mbène fils de Max mais tey ñun dañoo mel ni ku jëm esat Fallou fee nga jëm waa noonu la demee non lii lépp loolu du ko yàq moom champion la fils de Max xam nga mooy loolu quoi suñu préparation moo gën a métti kon ñun ñoo gën a bëgg fuf taaxali ko bu yàqawee noonu rek lu mënul ñàqale mooy li ma lax heure boobu noonu bu ñëpp meloon ni Siteu bëre day am mhm. moment bi làmb ji di yàqu noonu Siteu ngi si digg géew bi mhm. di xaar Papa Sow ñëw. Mm-hmm. léegi nag keneen ki nekk di tardé feneen feneen ba leneen am kooku la ñu war a wax. Mm-hmm. mais comme nii rek dañuy dañuy dañuy dañuy wax wax rek ne loolu passé na depuis daaw la. Mm-hmm. moom sax moo fi yeewaat coow lii mais munoon na bañ a demee noonu moom moo fi def keroog point de presse am ñu laaj ko mu ne jiili dañ ko aj d' accord dinaa ñëw ci loolu noonu. Euh, euh, combat bi ñu ni presque semaine moo ci des naka ngeen koy waajee. instant bi ku waaj sax da ngaa yab say nii nii nii dem bëree ji pare nañ waaw lu ñu soxla la. Mhm. loo xam ne la utuñu si civilisé utuñu si set. Mhm. maam dañuy jaral nañu nëbal ba baa ñu koy jël. Mhm. barki sëñ Bamba lii lu ñu soxla la te loo xam ne la si kàttanu yàlla ak mbaaxam du ñu ko ñàkk. incha allahu rabbi mhm. Siteu day daan Papa Sow si kàttanu yàlla mhm. parce que leen loo xam ne la loolu loolu rek moo mën a nekk ñun ñu mhm. mën a giifal loolu la rek tey man moom surtout man li ma mën a giifal loolu kese la parce que làmb ji bëri na lu si xew loo xam ne kenn mënul wax lépp ay milliards taxul ñu kontaan ndam rek moo mën a am ñu sax xaw a tane waaw euh, ci wàllu waa wàllu wàllu mbër pare na pare nañ fépp làmb lañ wax doo bàyyi dara mystique pare nañ fépp lu mu entraîné si combat bi. Mhm. wallaahi bu fekkee mës na ko am si làmbam. Mhm. non dina ma jaaxal quoi. Mhm. waaw xëy na nag ñu bëri ñoo ngi réere mbir. mais noo commenté la rek. comme dimanche soriwul moom yàlla baax na. tey ma ñëw ci li nga xamante ni daanaka fan yëpp mooy circulé ci réseaux sociaux yi muy amende bi nga xamante ni Papa Sow déclaré na ko ni waa CNG amende nañ la ko est-ce que mën nga ñu indil loolu ay leeral. Papa liggéeyul CNG Papa Sow suñu at ñi si mujjee di commentaire rek ba mu egg fenn fi. Mhm. moo ma métti. Mhm. parce que Papa saw kooku am na droit. Mhm. wax donte man sax amul droit di wax sama ajag ak yooyu ndax lekkul sama avance avance si te la lekk. mais bu ko neexee mu sànni ñu xeer bataille psychologique daf lu ko neex. mais ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo mel ni Papa saw mooy président CNG. bu waxee rek looloo am ba ñoom gisu jiwul ñi ñu war a laaj man ñooñu laay xaw a jox toor bi. te du ma leen jox toor bi làmb ak coow moo ànd làmb amul coow baaxul. lii moo baax nii moo neex. nañ ñu xaar rek la si si kàttanu yàlla ak mbaaxam. kon yow jotagoo benn nouvelle wala benn lettre bi wane ne yow mi sanctionné nañ la. looloo ma jaaxal te dem naa CNG boo gisee keroog si te ni mu waxee sax ñu bëri defe ne leneen la noonu lim sentir noonu loolu la parce que maa moom ñoo àndoon. moom dégg na li ma wax ak waa CNG dégg na li waa CNG wax ak man. Mhm. xam na lépp. Mhm. kon bu tourné loo xam ne daaw mu bàyyi ba ren nii moom mu koy déggaat. si ay noppam da koy da koy jaaxal ko mm-hmm. da koy jaaxal mais lu si waaj daf rek. Mm-hmm. jégal nañ te xam ne làmb noonu la moog coow a ànd. ñu gis tamit Père Bécaye génn di def ay révélation di ñaan waa CNG pour ñu baal la nga ñëw ci làmb ji parce que nag Siteu ak Djily tamit vraiment euh, dara dàqul loolu. <laughs> waaw ñu bari aussi tamit comme Père Bécaye génn na doon la ñaanal njekk pour waa CNG bàyyi la parce que tamit Djily ak Siteu kenn mënul dem bàyyi sa morom te jiili euh, dafa bokk ci xoromu Siteu. barki Serigne Bamba nañ sant sax ñoom biñ teelee waxtaanee affaire bi nii mais bu ñu bàyyi woon sax bañ ñëw si stade man Siteu du ma tëgg katam du ma tëgg katam loolu chaque jour ma wax moom chaque jour ma wax ko tëgg katam de mhm. mukk ñoom bis buñ bàyyi woon ba jouru lamb ja ma ñëw ñu bettee noonu noonu rek lii li tax ñu wax si nii sax baax na mhm. parce que buñ ko bettoon téye ko tey loolu liy am du neex kenn mhm. parce que lamb ji dafa war a egg si kàttanu yàlla mhm. te ñoo ngi ñaan yàlla mu egg a def sax si lamb ji parce que Serigne Saliou xam ne ne biir xol mu egg rek lañ bëgg mu egg kese loolu lañ bëgg boobu ba léegi moom lañ bëgg c'est que ju nekk la cay yàlla mooy dogal mais ñoo ngi ñaan yàlla lamb ji Siteu moom man toll naa ko foo xam ne bu xamoon ne maa tooñ wala mu xam ne CNG daf ma aj mhm. non du si wax mais xam na ne ajuñu ma xam ne ne tooñu ma mhm. ba pare ñu bëgg ma néewal doole bëgg a jël wax ji yëpp di ma ko xam nga yenn saa nga gis ko am day kii géwél du tooñ géwél du yàq làmb mhm. non non man 2010 ba léegi maa ngi si làmb tëgg lu neex d'accord tafal sama mbër lu neex loolu la ñu xamee kon bu erreur bi amoo amee sax bu bu ma tooñoon sax war nañ ma mën a comprendre. d'accord saxantuma mooy li may wax tooñu ma. d'accord comme li nga wax ni Siteu toll na la fu euh, sori est-ce que nekkul tax moom tamit mu jël engagement am ni jiili bu ñëwul du ma bëri. non non te waxul sax jiili bu ñëwul du ma mais maanaam Siteu mooy li la wax sànq si ay biir wax dafa déggoowut ak ñee parce que déggoowut ak ñoom moom mooy daa xam ni nekk si suufa suuf. Mm-hmm. mooy man ak moom ñoo àndoon CNG toog jàkkaarloog waa mu jékki-jékki jékki-jékki nii nii nii nii moom muy dégg aj yooyu non yoon la moom mu waxee feneen parce que amaana lamb mhm. te gis nga combat bi ni mu demee ñi ko tëgg kambee lañ nekk mhm. tey moom lu ne la ko nit di wax mais moom yorul esprit boobu yoruñu esprit boobu mais am xam ne nag ñoo koy bàyyi xel bu baax a kon yow da nga jàpp ni ñoom Papa Sow dañu dem influence influence CNG non non Papa Sow mënul influencer CNG parce que Papa Sow moomul CNG mhm. Papa Sow licence la am rek comme ni koy neen moom dafa jéebaane moom ak ak làmbam rek bañ ma ñëw moom man la làmbal te li mu doon bëgg yëpp jàll na parce que cool yi bari na. mais la mooy seen problème yéen ñaar. non Papa Sow kaa ma xamal la nag <laughs> làmb dafa garaaw de. Mm-hmm. billaahi wallaahi taalaay Papa Sow bu sañoon le six du ma gis. Mm-hmm. bu sañoon le six du jàkkaarloo ak man. Mm-hmm. làmb laa lay wax nag. Papa Sow kooku man asibam laa. waaw sama mbër la nag sama grand la nit bu baax la. mais. xam nga àdduna yenn yi dara jaru ko fi moom dem na ba fii mosul ñaaw na rafet. Mhm. Papa Sow dem nga ba fii mosul ñaaw na rafet. yow ñun mhm. ñi ñëpp yàgg nga ñëw bégal yàgg nga ñëw teg naqar. Mhm. bégal nga ñu. xam nga. teg nga ñu naqar. kon ñun yow yàgg nañ la topp. na rafet. sa li nga def sa carrière yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp non bul ñëw ba si combat di mel noo xam ne mooy loolu. mbër musul xuloog tëggkat. si àdduna. mu mel ne sax yaa ko fi daf daaw ba ren mënoo bàyyi. mu mel ne sax face à doon na la xaar. face à bi doon na ma xaar face à bi ñëw naa ba foofu dama ñëw ba foofu tourné waat di ñibbi di am ñu may àndal man leen ñun nañ leen ñibbi parce que dama koofaa bi moo neex nii rek affaire bi neex rek sama yaram taw ñu taal oto yi topp si xam nga mhm. mais dama doon dëpp mais li tax ma dem nañ ba jox ma maa ngi ma àndal ñëpp pour ma dugg man leen non ñu wax wax ma damay ñibbi boobu mhm. xaw ma lan la mhm. mais xam naa lii laa yegoon mhm. parce que moo fa fekkoon après ay leeral dina am nga waxee neneen sax juum wala dara te ñoom loolu lañ ci bëgg mais wax ji wax ji wax ji wax ji quatre-vingt-quinze boo ku bokk CNG ku wax wax ji wax ji ñii ñaanay wax Bécaye comme ni nga waxee sànq père Bécaye moom sama père la saa buy def édité wallaahi la azim bokk naa si ñi mi njëkk woo yaatal ma si. Mhm. buñ paree may gis bëggee bu may bëggee boo xam ne yëkkati xaalisam di ma jox. Mhm. kooku sama papa la jéeri ngoone maalaw ba sàmb suñ papa kooku per begaay kooku moom. Mhm. amul jotu dam ay CNG di xool lu nekk si ay kayit ak moom dégg na rumeur dañoo aj jili dañoo aj te fii sam laa mu ñaanal ma. moom li war papa li war papa si doom moom loolu la ma defal. muy sama papa la dégg na aj nañ ma ñaanal na ma mais ñi nga xam ne tey ñoom ñooy comme yéen. Mm-hmm. journaliste ak ñiy liggéey si làmb. Mm-hmm. balaa ñuy jékki kenn micro di ko laaj ci aj wala kenn di ma ñaanal wala dara. na ñëw ci yow non pas mu ñu ñëw si man mais nag CNG. Mm-hmm. man sax li ma wax amul njëriñ mais CNG. bu ñëwee booy bi dañ ko aj barki Serigne Saliou du ma génnaat si télé di wax. billaahi wallaahi taalaay bu ñëwoon dañ ma aj xalaatuma wax si làmb ji. d' li may seex ak laay seex ak pare si. d' accord mais jërëjëf ñu gis na nag Siteu bu daan bëree moment yii na fekk tuus bi bàkk bi xale yi di ko salant ñëpp di ko xaar ñu gis ni combat bi dafa mel ni coow li daf la xaw a wàññi ba nga xaw a lalu tuuti. mooy li ma la man dama am ay mbokk. dama am mhm. papa dama am yaay. Mhm. yaa ngi gis am na loo xam ne kenn bëggul di ko dégg sa mbokk parce man ragaluma sax loolu. Mhm. mais ñoom xam nga ñi ay paa la ñi ay meer la ñoom dañuy tiit si loolu xamuñu yow. Mhm. dañuy defe ne sax dañu lay koj wala dara. Mhm. te yàlla xam na ne si dëkk bi lañ dëkk. Mhm. xam nga mooy li ma lay wax rek loolu mm-hmm. moo si métit bi samay mbokk tey dañuy jaaxle ñii di mm-hmm. tiit ñii di kii sama papa wallaahi la azim bi problème bi amee depuis daaw Touba la jóge mm-hmm. nii nii bi muy déggaat wax ji nii Touba la jógewaat ñëw parce que am yéene yow di la bàyyi nga dem noonu parce dafa mel ni aussi Papa Sow ni mu waxee dafa mel ni ku lay jaxasee ak say mbokk wala say askan parce que yaa sama kaw euh, attanu ma ko may metti non Papa Sow lamb la rek Papa Sow xam nga daaw dugg na si bi di jooy Papa Sow joom yooyu moo feragul ba léegi moom looloo koy wax loo nii mais na xam ne nit kuñ bëgg la bu dee ñun ak ñun rek mhm. du am leet lu ko meet si àddunaam mhm. moom na ko yàlla dafal jàmm rek mhm. xam nga mais comme li la léegi léegi léegi léegi léegi ba suba si heure bi nga xool ndax di <laughs> amul nañ ko xaar Mm-hmm. incha allahu rabbi démb mm-hmm. si te ñoo ñoo ànd sànq jóge janwaar démb répété nañ fa loo xamante ne loolu day toj àdduna d'accord si kàttanu yàlla dinañ si ñamale tuuti rek mm-hmm. mais li si des ku ko bëgg a gis teel a la ñëw la si solu rafet toog si porte xool léegi ma génn ci coow ñu ñëw ci état de forme ñaari mbëri Papa Sow jàppoo ne xaw na sàcc doole si te tuuti yow loolu nga jàpp non damay laaj damay laaj waaw bokkul te du sax benn te loolu du leeree si micro bi si mhm. kàttanu yàlla 2019 ba léegi gaa yaa ngi wax mais ba dimanche bii di ñëw mhm. yàlla nañu yàlla dimbale rek mhm. dara bañ a yàq làmb ji cat bañ ci dugg arbitre sifflé génn seen diggante may leen si tàgg Papa Sow xam nga lu ma si gën a neex mooy àdduna bi yëpp nee nañ papa pare na tey athlète bu paree bu paree day bëgg adversaire am pare yàlla na Papa Sow pare fépp ñëw taxaw indi lépp ñëw taxaw jàkkaaroog si ta xool yàlla baax na parce que li nit ñi di xool li nit ñi di wax tamit koo laaj rek day jël euh, favori jox ak nga xamante ni mooy Papa Sow. Mhm. mooy yoon Papa moom la war a jox favori. parce que mhm. Papa Sow moo fi bëre ay quarante ay trente nangam combat. Mhm. Papa Sow ñun biñ koy supporter comme booy yi lañ toll. lim fi wane. maam rek a ko mën a wane. kon moom suñu lépp la moom suñu maam la suñu baay la. mais loolu jàppoon ni mën na jouer ci. moo fi wane lu fi Siteu waneegul nga ne. mën non non favori loolu nekkul favori nekkul yaay daan wala yooyu. Mhm. yow lañ jox favori parce que yaa bëri ay combat yaa gën a bëri ak ay mbër yu mag. yaa mhm. jaar fu yàgg. Mhm. mais lu bët arbitre siffle rek. mais sa biir wax dama la dégg nga ni man sax niñ ma doon xaaree parce que ñëpp jàpp nañu man tëggkatu Siteu laa te man bi ma déggante yow téléphone fa ma wax fa nga nekk ak ci nga nekk est-ce que tey mënuñu xaar suba di ñëw yor yor yor 10 litres yi. mooy li ma la wax rek man lamb Siteu tey ñoom dañoo baax mais bu ma nekkuloon tëggkat sax xëpp Siteu gàllaaj mbëru àdduna la am na fu muy mhm. toll si àdduna foo xam ne am na fu muy toll si ay bisu làmbam yoo xam ne mhm. moment yoo xamante ne ku dul nitam rek mhm. doo xam fu muy nekk doo ko jege mais man yàlla moom cër boobu am moom balaa muy gën am lu ko neex sax tourné di ma gis barki Serigne Touba Jili Mbacke waaw Jili Mbacke wala mu ne ma mbay xam nga <laughs> moom balaa gën a am ko neex tourné di ma gis te noonu lañ koy dundee chaque làmb ba mu sita ba mu dalee bëree combat yu mag ba nii saa buy bëree jamono ji yëpp ñoo koy nekk. bu ma mhm. neexee sax bu ñu nee suba la làmbam ñooy fanaan. Mhm. waaw xëy na mhm. man maa koy bàyyi muy. nekk ci boppam rek man ma dem nekk si leneen. d'accord lu ñu dund du ay affaire tëgg. li ñu dund loolu deret la. d'accord mais boo gisee ni mu waxee keroog. pour eh, pour Siteu ku ko tëggal mu dem stade yomb na. man du yàgg ma ma dugg si géew bi. mais deretam laa. moom dañu yàgg dañoo dund loo xam ne musul bëri tournée gisuma. moom musul sëgg di bëre muy mbapat jour bi mu dalee tax ngemb bu ba mu ko mujjee tax musul bëre tournée gisuma d' accord waaw euh, tey ci sa cadre sécurité bi coow loolu amee ba tey jotoo ci ay menaces wala ay nit di la kar fii extra <laughs> non <laughs> jotuma ko si de ah. non accord non non jotuma ko si de d' accord d' ñun yow <laughs> waaye menace waaye hmm. yàlla baax na yaa ngi firi daal yaa ngi dox say soxla sa des sax ma gën tey ak yow almadi combat Siteu Papa Sow bi mhm. bi lamb ji passé même semaine man laat man sama fréquentation foofu la. Mhm. man sama fréquentation foofu la. Mhm. man yàlla daf ma boole foofu ay nit ñoo xamante ne nii. Mhm. munu ma wax lu ñaaw munu ma def lu ñaaw ndax ñooñu. dafuñu ko waxuñu ko. te ñoom ñoo ngi foofu du ma tudd tur ndax lamb la. mais man bu Siteu ak Papa Sow bëree le 6 le 7 maa ngi waat foofu. xam naa ci dara parce que Siteu a muy bëree ak guy gi. waaw guddeeg bëccëg doon tëggal guy gi. te teewul nit mhm. daaw ma mukk guy gi sama nit la Siteu sax da doon wax. Mhm. man noonu laa mel. amoo fenn sens interdit. Mhm. barki Serigne Bamba foowee naa fépp. d' accord xam naa ci dara d' accord tey fi may jeexalee ñu ñëw ci wàllu euh, euh, mobilisation bi ak naxa ngay yebee supporters yi ñu fair play parce que làmb ñu bari dañ leen di séntu ci gaalu xaj ko mooy làmb dafa bari ay violence. ñu bari aussi tamit di ci jiiñ baaraamu ki nga xam ne mooy Siteu euh, donte du moom mais naka lan ngay wax supporters yi. la duñ ne sax am na fépp. Hmm. dañuy nangu tuuma ndax nangu tuuma loolu loolu leneen la. Hmm. nangu tuuma rek loolu leneen la Siteu looloo ko dal tuuma bi ñu koy tuumaal nii du hasard amaana mooy tax sax. Hmm. suñ borom di ko indi fii si làmb. ndax dafay nit buy gàddu tuuma la te gàddu tuuma. loolu noonu loolu gisuma lu ko gën a gaaw. ñu lay tuumaal loo xam ne nee ko Siteu gis nga àddunaam lim si def. mi ngi ibbi fondation. billahi mi ngi ibbi mi ay loo xam ne di jàppale nit ñi. xaritam del laaxu na fi. mu xam mu defal ko. loo xamante ni mhm. moom moo fi gën a tuuti la ñu ko pëlee ngi fi ñu ko te ñoo ñu leen gën a jege dam nañ dafa luñ si te dafal xaritam mhm, mhm. te bëri na yum si daf jënd na fi ay moto jox gars yi dara day jënd ay moteur nawet bi di ko di ko joxe day xuus si ndox mi bu ko neexoon tuxu dam dëkki feneen loolu lañ ko toppee bëre bi nii leneen lu si wisu la rek mais moom gars yi dañoo gis si moom loo xam ne réel loolu lay mel di ko ñaanal rek di sensibiliser waat gars yi leen wax na ñoom ñëpp nañ ñëw si tekk ak teey xam nga lamb ji incha allahu rabbi suñu lamb la. Mhm. nañ ñëw comme niñ ko doon defee sol lu rafet. Mhm. tekk ak tey. Mhm. ñaari nit nag neex na ñoo lijjanti mais àdduna neexut a lijjanti. mbooloo mu bari bi Siteu di déranger. ñooñu noonu am na ñoo xam ne si suuru combat bi la ñuy ñëw Siteu xamu leen sax. te bu lamb ji jeexee Siteu du leen gis sax. mais ñi jege Siteu dëgg dëgg dëgg jamono ji tal nañ leneen lu dul tooñ. wala wax nit lu ko metti ñun bëgguñu lu dul arbitre sifflé. Mhm. Siteu ak Papa Sow bëre Papa Sow Siteu dóor ko mu daanu si kàttanu yàlla. allahumma ñoo ngi jégalu. Euh, voilà gars yi mu ngi noonu ah mu nekkoon Djily Mbacké nekkoon suñu invité tey waxtaan bi neex na trop euh, mu nangul ñi aussi tamit lenn ci cëram euh, dinaa ci sànni kàddu tuuti rek bala moo ko bàyyi muy. tàggatoo mu nekk nit ku baax ñu nekkoon ci guy gi ki nga xam ne mooy Pambaay ma jaaga mhm. euh, indi ko fa vraiment mu nekkoon nit ku baax nit ku disponible bëggoon guy gi aussi tamit mhm. may def benn témoignage ci ki nga xamante mooy Siteu euh, donte ñun ñëpp ay mbër lañ licence bi mu yor laa yor mais tey bokk na ci mbër yi nga xamante man dama leen ndamoo di leen tiitaroo euh, du wax ci kenn ki ma nekkal sax du wax ci moom mais dinaa seede ci moom tuuti

ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ci combat bi euh, tey sa mot de la fin ci émission bi. non di gërëmaat rek di santaat xam nga di wax ne people 221 na ko gaab bàyyi xel. ñoo ngi def liggéey bu am solo di la gërëmaat. Mhm. yow ak sa équipe. 95 mhm. yow yàgg nañ. Mhm. mooy li may wax boobu amaana Siteu sax eggu kenn xamu ko. dëgg la te ñu door xam nga ñu doorandoo ci guy gi foofu. ma koy nuyu tamit guy gi sama grand. seer sekk kooku sama doom baay la. xam nga di ko ñaanal. yoonam rafet. Mhm. làmbam leer. Mhm. li si des neex doon ay ndam. Mhm. parce que nit ku baax la kooku sama waay la. kooku du ma ko fàtte mu ko barke sëñ Bamba dafa ma dafa am lu ñu dund a guy gi nit ku baax la. yàlla na ko yàlla jàppale moom di ñaanal Siteu suñ borom defal ko ndam làmb lii coono bii mu si nar a dund na nekk coono bii rek. am jiili baal jiili ak coono entraînement yeeg yooyu. Mhm. mais lu dul loolu yàlla bu mu si gis coono yàlla na ñëw mu nooy nepp. Mhm. si mhm. te am nañ ci yaakaar. wallaahi la azim wóolu nañ ko. amuñu sax xel ñaar. yàlla ñu yàlla lafal cat rek. xam nga. amiin kook ak sagoom mu wér péng. papa saw tamit wér péng. parce que bu wérul duñ mën a bëre. ñu ñëw arène nationale le 6 daje incha allah. nañ wax lu rafet rek. d' euh, mu ngi noonu gars mu nekkoon suñu invité tey Djily Mbacké borom jàmm gën euh, di